tay ci ngoon dañu woowoon les tieswa pour que ñu marche genn wane suñu nakar wane euh, ni d'accord ñu ci prix électricité bi ñu yok marche bobu nak dafa fekk ni amna ay yenen sénégalais yu nga xamanteni ni dañoo ambition bobu amone sentiroon ce combat pour mener ko muy melni ñom euh, Babacar Diop le docteur Babacar Diop Guy Marius Sagna ak ñeneen ñi nga xamanteni ñom la ci bokkolon tay ji ni état japp leen donc yobul leen ci prison yi Dakar yi kon nak ñu bëgg leen wan ni combat combat c'est le combat du peuple c'est le combat bu nga xamanteni ñepp les citoyen nga xamanteni japp nga ni waro avons lu Les citoyens sénégalais xamanteni citoyen sénégalais mérito kon japp nous ni kon ñoon ñepp ni combat bobu nga bok tay ji di nga ñu rejoindre ci combat bi kon nak ñu wan ñom Guy ñom Babacar Diop ñoon ñi des ñepp que ni combat bobu duñ ci combat Nous dinañ ko les ak ko ba Sénégal am ci ndam ci yokkum courant bi dañ ci bëgg a wax ni rek doon na loo xamante ni métti na tuuti sénégalais yëpp te yokkum courant wane ni yokkum lépp la bu ñu yokkee courant lépp ay yokku bu ñu courant mburu dina yokku suñu yokkee courant tailleur bi dina yokku suñu yokkee courant leneen ak leneen dina ci bokk kon yokkum courant moom yokkum lépp la te mel na ni bu ñu bàyyi yokkum courant yi mu jall leneen dina yokku am na lu commencé woon avant courant yokkoon nañ ciment yokkoon nañ pétrole yokkoon nañ gaz donc bu ñu yokkee courant tey jii nañ xaar ni ndox dina yokku bu subaa ceeb dina yokk dëwlin dina yokk leneen dina yokk on na yaakaar nañ ni li olof Njaay di wax naan xoddeeku balaa ngay lakkale kon war nañ ci jóg